del déglu del xool Feeling Dakar site lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar dégg say bokk say xarit say papa li ñu seet sama xol dafa fees maa kontaan trop trop kontaan naa si ñëpp man daal xaw ma sax war a wax man damaa kontaan ndax mënuma sax wax sama xol dafa fees. sa diggante ak Tarba ndax nekkoo fi yaa ngi bitim réew seen relation nu mu demee. <laughs> Ah, maa ngi États-Unis damay dem di ñëw ak yooyu noonu. la waaw ah, ñoo màggandoo. ñoo màggandoo. jabar bu ñu yar ko. kii ko denc ba mu amee 12 ans teg ko foofu. man maay bàjjana maa koy waxal loolu. ñu wax ko sànq sa digganteeg sa papa macha allah yàggut nga doon ñaan yàlla ñu fekke ko ak sa papa yi loolu nu mu lay def tey. dëgg la sama sañoon moom bés dafa fiy fekk na da yàgg ñaan lu mu yàgg ñaan la waaw ko bul ko bës euh, li bàjjen bi wax. waaw waxal nee na moo. bul jooy ñun ñoo nopp Tarba. Tarba maay bàyyam kii maay bàyyam li ko laaj ci Tarba. moom xamagul nopp. ñun ñii ñoo nopp Tarba. ñun ñoo nobale ñoo nobale. waaw waaw ñun ñoo ñoo nopp ndeyu Tarba nopp Tarba boo demee nga ne Tarba bàyyi nee na ak yaayu Tarba waaw. waaw ñoo la nopp bàjjenam bii moo ko yor ca Las Vegas bërki démb laa dem Las Vegas bi seen papa génnee àddina dama dem Las Vegas dem jaale ji leen seeti leen xool nu ñu toog doon ay magam ñu wóolu ko mu yore seen compte yëpp business magam la yor taxawaalul te mbaambalul ab Moustapha Mbaye ngi jóge fi léegi. wallaay dafa am ñu ma àndal ñuy ay kilifa ñoo xam ne ñoom la àndal. ay kilifa lañu. te kilifa ñoo ngi nekk ci suuf mu ñu yéeg. te timis mi ngi jot. nee te timis mi la waaye bu dul woon loolu. nekkoon ak damay nekk ak yéen ba ñun ñëpp ñu doyal. nee daal day nekk ak yéen di leen bégal ngeen koy bégal. ba ba muy doy. nee ba ba muy doy. te xam naa du doy. nee xam ne sax waaye wolof nee na. nee wolof nag dafa wax ni. loo xam ne bari du tax mu doy. nee loo xam ne bari du tax mu doy. néew du ko yàq. nee néew du ko yàq. bu ma leen fi bàyyee. nee bu leen fi bàyyee yaa ngi déglu Thierno. dama fiy bàyyi sama bopp. nee dafay bàyyi boppam. mu yóbbaale leen. nee na yóbbaale leen nag géew. li ma indi. nee li ko indi nag. moo den ñëw siyaar leen. nee mooy siyaar leen. ndokkeel leen. nee ndokkeel leen. ci lii ñu bokk. nee ci lii nga xam ne ñoo ko bokk. muy suñu ñaari doom yi ñu boole. nee suñu ñaari doom yi ñu may. te ñu boole leen. nee ñu boole leen. ci farata ak sunna. nee ci farata ak sunna Muhammad te ngeen yombal lépp. nee tubaarkalla te ngeen yombal lépp. ay sa jaaga. muy baay biñ ko bàyyeel. nee muy baay bu baax bi di ay sa jaaga. di sama mbokk. nee di mbokk deretam. di sama rak. nee di rakam. ak maatu mii ko jur. nee ak maatu bu baax mi bàyyi mbaari jur. di sama mbokk. nee di mbokkam. di sama rak. nee di rakam. ndax kër gi nee kër Baye Mbaari gii borom kër gi nee borom kër gi ñëpp xamoon na nee ñëpp xamoon na cofeel gi mu amoon ci man nee cofeel gi mu am ci Alaaji Mbàkke jëw mu wér nee daal loolu daal lu wér loolu lu ma mas di dugg nee lu ma mas di dugg dinaa ko wax ak moom nee dina ko wax ak Alaaji Baye Mbaari te dina ko ànd ak man nee dina ko moom ba ma am ko ni ma ko bëggee nee ba am satisfaction totale ci loolu ñu wëlbatiku nee mu wëlbatiku nag kii nee di suñu doom ji nee suñu doom ji ki ko jur nee ki ko jur daf ma génnul fenn nee génn ko benn boor di sama mbokk nee di mbokkam nag mbësu jur ko mbësu nee mbësu sama maam la nee maamam la ndax da doon denc sama maam nee moom day maamam ndax da doon denc sama maam ndax ma ndaw caam mi ko jur nee bokk gan caam day gan caam day ak baay dafa keneen ku mbokkal ndey ak baay. am keneen ku mbokkal ndey ak baay. muy Fat Thiam. nee muy Fat Thiam. mi jur Jibi Ngom. nee moo jur Jibi Ngom. mi jur sama jarbaat yi. moom man it ci sama xol laa ko def. kon fii bu ma fi ñëwee. nee kon moom bu tàbbee ci kër gii. sama kër laa ñëw. nee ci këram la ñëw. kon gan yi maa leen waroon a dalal. maa leen war a yendoog ñoom. ba ñu ba gunge leen ñu ñibbi. kon yàkkamtiwu ma. nee mais li ma tënk rek looloo tax. ñi ñëwoon dafa am ñu jóge Touba ñëw ànd doon ñaan si. àndoon ak man te ay mag lañu. te ay mag mënuñoo yéeg. te loolu rek a tax. nee waaye yàkkamtiwu ma. ndax fii. nee fi yàkkamti. ndax ci sama biiri mbokk rek. laa ak samay soppe. samay xarit. ay xaritam. biraan. soxnaam. soxnaam. sama mbokk yu baax yi kon ak sama jarbaat bële. kon. ne du ma yàkkamti mais loolu rek a ma tënk yàkkamtiwu ma sax nag waaw euh, euh, li ngeen di wax nag ne a baax rek di ma gërëm waaye loolu ci yéen la ne nee ci la ne ndaxte. nee. nit du maye lu newul ci moom. nee nit du maye lu nekkul ci moom. koo gis muy wax lu baax. nee koo gis muy wax lu baax. dafa fekk mu baax. day fekk baax kooku nekk ci moom. ku baax. nee ku baax. moo mën a wax lu baax. nee moo mën a wax lu baax. ndax lu baax la am. nee ndax lu baax rek la mënul wax leneen. kon li ngeen wax lépp. nee li a baax. nee tout cas daal man. nee moom jëwriñ Makiw. ak Moustapha. ak Moustapha. ak Ndeye Khady. ak ñii ñu àndal ñëpp ñoo ngi leen di sant. internet yi nu nuy leen jaar leen ngeen xam ko tey seen xarit seen waykat Tarba mbaay yàlla dogal muy dund ba bisu mbégteeg bànneex ñëw muy takk soxna Tarba nuyu naa la. waaw salaamaaleykum maa leen di fay Eh, ñu ngi sant yàlla nag di julli ci Seydina Mohamed di sant Serigne Touba eh, di sant sunu ñaari waajur di sant sunu yaay di sant suñu papa di sant suñuy mbokk di sant sama nijaay El Hadj Mbacke yu fay nga xam ne li lépp moo ko waral moo koy sant bu baax a baax a baax maa koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm xéewal sutura mu yàgg fi lool. moom mooy docteur ci biir famille bi maa koy sant bu baax a baax a baax a baax di nuyu xarit yeeg mbokk yeeg soppe yi am jàmm yi ah ñi teew ñëpp ak ñi teewul fépp waaye nekk si àdduna maa ngi lay sant jërëjëf bu baax a baax. nga wax lan tey ñi lay seetaan bi àdduna bi yëgee Tarba mooy takk soxna muy bisu mbégte. waaw sant rek tey moom bisu mbégte la sant nañ sant nañ sunu borom bu baax a baax a baax kontaan nañ bu baax a baax a baax ndax ñëpp ñëw nañu fépp lañ may woowee ci àdduna bi di ma ñaanal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. tey am naa mbégte boo xamante ne am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem sant naa bu baax kontaan naa ci ñëpp. ma laaj madame ne ko lay wax Tarba moom nekku fi woon Amérique la nekk ma ne bi nu demee noonu fu ngeen gisante wala fu mu tàmbalee. ah madame wax na madame moom madame est-ce mën naa wax ak yow. na fi. ah, ah noonu la. waaw moom moom de xaw nañoo yàgg tuuti. Mhm. waaw ba sunu borom dogal lii si sunu diggante. mu nekk moom tamit jigéen bu baax nekk jigéen bu yaru nekk tamit jigéen bu ma bëgg. macha allah may ñaan yàlla euh, seytaane ba ñu am yoon sunu diggante maa moom ñu nekk ba faw incha allah. xaritu artiste Elaj Bambali ndaanaan yëpp gis nañ leen fi ñu ñëw sargal si la. waaw gaa yëpp ñëw nañ kontaan naa ci trop vraiment kontaan naa ci sama mbokk artiste yëpp ñu teew ak ñu teewul xam nga. waaw xam naa ku fi teewul ak da nga amul jot mais ñoom ñëpp woo nañ ma téléphone. ah ñii yónnee nañu vraiment kontaan naa bu baax a baax a baax. maanaam nag bu nee ko looy wax tar ba am na lum am na lum wax loolu di nga ko seetaan yow loo koy wax. man maanaam lu ma koy wax. Ah. mooy na toog rek muñ. Ah. te góorgóorlu xam ni say neexul ah na toog muñ euh, bëgg jëkkëram yam si jëkkëram gàtt làmmiñ gàtt tànk di wax nànk di dox nànk Sénégal jëm kanam. <laughs> maanaam c'est artiste yombut mu ne waaye man lan nopp man lañ tàkk. non est-ce que moo wax loolu. ah non kooku du wax yooyu de bu waxee loolu tamit ah xam naa kon tamit kontaan na. ah waaw comme noonu la demee lu mu wax rek noonu la. bëgg nañ ci yow. jaajëf kontaan naa maa ngi leen di bëggee bu baax a baax sama gaay yi. allahu hasbi li diini hasbi allahu aksil ak jàmm fii ci Pikine Texaco fi jàkkaarloo immeuble Mor Yombale fekk si fi soxna Seynabou Gueye alias Bijou borom gis-gis bu leer baa ngi nii voyante bu mag bi nga xam ne dafay seet ci xeetu seet yu bare bare lu toll ci ñaar fukki seet ak juróom benn seet boo ci bëgg mu daal di la ciy seetal te bu mu la seetal ba bàyyi nga jàpp ne boobu la nee naa la ak soxna Seynabou Gueye Bijou mi la voyance ça sera jafe-jafe ci wàllu cat rab def def nekk ci yow ñu def ci yow liggéey dangaa bëgg ay këyit dangaa bëgg a sëyi danga bëgg ubbiku sa wërsëg yaatu da nga bëgg a tàqalikoog lépp lu lay tëj ak lu lay yàqal niwal nga jokkoog moom mu daal di lay sang ci tuuram ya mu amee lépp dañ ci sa yaram bi le jokkool ak moom gaaw ci 78 122 07 97 78 122 07 97 xam-xam day yaatu lool te baax xam-xam itam dafay leer te soxna seen bu gëy cëpp kin teg zaako ku ko fekk fekk ji xam ne moom la moom kott moom dong moo tax ma la la voyance autrement avec soxna Seynabou Guèye dun mu del déglu del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Dakar di am info yu